waaw sama gars yi dañuy essayé waat fii xool ndax fii moom dina tane j'espère bien que ça ira ngeen jéggal ñu waaw j'espère que c'est un peu plus def naa bii moo tane tuuti voilà donc voici voilà waaw defe naa bii moo tane bii moo tane sama gars yi voilà bii sax defe naa ne man sax bii laa gën a tàmm appareil bële moom defe naa dafa am dafa dafa am nu mu mel est-ce que boobu du pël ñoo ci rax wala dara <clears throat> boobu defe naa Macky Sall moo dugg ci biir appareil boobu quoi parce que appareil yi ñu yóbbu woon Jolof defe naa il faut ñu changer ko Macky Sall dafa dugg ci biir Macky Sall ak affaire mi waa partager leen partager leen vidéo bi partager leen. voilà partagez leen partagez partagez partagez au maximum partagez partagez leen vidéo bi partagez nun tamit am nañu ataaya dafa ngeen ne yen senegal rek am ataaya nun it am nañ ko de fi mu ne nii nanu voté rek vot bi rek partagez leen vidéo bi ah waaw waaw gars yi maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ziar voilà mbir mi ñëwaat na defe naa fi mu toll nii moom macha allah jaar na yoon voilà sebon bon fi mu toll nii moom defe naa we we in good shape voilà donc xam naa rek dinaa xaw a euh, recommencer waat waxtaan bi tuuti pour ñi nga xam ne ñoo ko manqué woon euh, ñu xaw cee mën a jot mais comme niñ koy defee rek dañ koy dóor pa PowerPoint rek comme nit ñi nga xam ne ñoo ko rate woon ñu continuer live bi mais tey li ñu indi ci live bi ak li ñu fi indi temps yi yëpp ngeen ñuy gis c'est tout simplement pour sa battre contre le malheur du Sénégal xam nga Sénégal dafa toll foo xam ne comme ni ko ñëpp xamee ak ni ko ñëpp di waxee l'heure est grave xam nga ñu ne boo demee ci bërëb la premier chose à faire mooy nga nga nga vérifier nga xool maanaam nga inspecter mbir mi maanaam nga xool ci li nga dem lan la nga xool nit ñi ni ñuy dundee nga xool problème yi ci biir dëkk bi nga xool jafe-jafe yi ci biir dëkk bi bu boobaa nag nga dellu nga ñëwaat ci candidat yi nga xam ne ñoom ñoo présenté wu à la présidentielle nga xool leen nga jàngat leen nga xam ci ñoom comme li ma leen di wax tey heure bi déjà du ñëw ci kaw candidat yi déjà tey li ñuy def pour la première fois mooy dañuy jéem a concentré waat ci li nga xam ne rek moom mooy li gën a important ci électorat Sénégal ci élection Sénégal mooy doomu aadama yi déjà ñu ne leen carte d'identité yi ba léegi ñu ngi koy distribuer ci lieu yi ngeen ko war a jëli jee ngeen dem ngeen jëli seeni carte d'identité yi ñu pare ci loolu ñu ne doomu aadama yi yëpp gis ngeen génn bi neex na génn bi neex na de bi neex na génn bi neex mais ce qui important li gën a important li gën a important pour doomu aadama yi mën cee bàyyi xel li gën a important ngeen bàyyi ci xel mooy ngeen voté il faut que doomu sénégalais yi xam ne il est temps pour aller voter xam nga tey bu ma leen misleader ma ne leen léegi li ñu war a def mooy lan na nañu boycotté ay élection nañu xeex seulement ak Macky Sall nañu bañ a dem voter comprendre leen ne que toute chose à son temps lu nekk dafa am waxtoom lu nekk dafa am waxtu lu nekk dafa am waxtoom ce qui est important lu nekk dafa am waxtoom doomu sénégalais yi dangeen di comprendre ne que toute chose à son temps temps bi Sénégal tollu tey mooy dañuy génn conscientiser doomu sénégalais yi ne leen fa ngeen di voter loolu du sama responsabilité loolu du sama coobere pour ma wax leen ko that's not my responsibility loolu du sama coobere man fi ngeen di voter pour man duma leen ko wax yéen xam fi ngeen di voter mais je sais que ñun ñëpp opposition lañu te ñun ñëpp benn xalaat bi lañu am te ñun ñëpp benn nit bi lañu bëgg a daaneel te buñ ko daanelee bu ci yàlla àndee benn nit boobu la ñu bëgg a parce que le seul malheur que le Sénégal a aujourd'hui Macky Sall la le seul bi Sénégal am tey Macky Sall la le seul malheur Macky Sall il faut ngeen comprendre loolu les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Sénégalais Macky Sall a réussi à à diviser les Sénégalais il a réussi à acheter les esclaves xam nga Sénégal ndeysaan ba léegi esclavage moderne dafa am doomu aadama yi xamul ci seen xalaat toujours doomu aadama boo amee njëg rek yaag jàmbee yem parce que jaam dañ koy jënd depuis ci taw yonent yenn njaam yi dañ leen daan confisquer comme maanaam dañ leen daan jàpp forcé indi leen mais ñenn ñi dañ leen daan jaayante donc doomu aadama bu amee njëg rek jaam nga ak noo ko mën a tuddee bu dee cinquante millions lañ la jëndee bu dee cent millions lañ la jëndee jaam yi dañu ëppante njëg jaam bu gën a duuf gën a bari njëg donc pour Macky sàll moom jaam yi muy jënd bu leen lambee jaam bu ëpp intérêt ci moom jaam boobu lay gën a fay euh, euh, majorité. ma am rek loo xam ne aussi fan yëpp dama koy remarqué ci réseaux sociaux yi ak fu ne mooy gis naa ne féewaloo bi bari na xiiroo bi bari na ŋaayoo bi bari na. gis naa ne waa réew mi ñu ngi dóorante ak waa Sonko waa Sonko ñu ngi dóorante ak waa réew mi xeex bi du foofu pour le moment mes frères et sœurs c'est pas là-bas le xam nga loolu yëpp c'est une c'est une façon de nous divertir loolu yëpp benn façon la pour jëlee ñu si suñu concentration il faut que les Sénégalais se concentrent dans ce sur ce e est important il faut ngeen xam ne que lenn rek moo important ci xeex bi ñuy xeex mooy ñu jële Macky Sall ci situation bii mu ñu dugal rek mooy ñu jële Macky Sall Sénégal indiwaat un Sénégal nouveau nouveau loolu rek mooy mooy mooy wax ji loolu rek mooy wax ji loolu rek mooy wax ji il faut que ñu indiwaat un Sénégal nouveau loolu rek mooy wax ji loolu rek loolu rek mooy wax ji xam nga boo toogee tey sénégalais boo xoolee li ñu li nga xam ne loolu la sénégalais gën a aay loolu la sénégalais gën a capable tey boo ko seetloo mooy lan mooy kastante ak waxante lu ñaaw sénégalais loolu liñ ciy compétir bu loolu bu amoon compétition ci àdduna bi Sénégal avec ses quinze millions de personnes on battra le reste du monde entier mais du loolu mooy solution suqali àddina loolu yëkkatiwul Sénégal lii yëkkati Sénégal li nga xam ne moom moo war a yëkkati Sénégal ça n'a rien à ak suñuy problème personnel suñu ay problème personnel buñ fi toogoon di ko lim ay année du mat suñ fi toogoon di ko wax ay weeri weeri weeri weer du mat suñ ko waxoon ay ati at du mat lenn rek mooy li nga xam ne moom moo important lenn li important mooy doomu sénégalais yëpp war koo bàyyi xel mooy Macky Sall rek Macky Sall bu ñu nee caay-caay bu ñu commencé waxtaanam ci ay affaire caay saay maanaam da da dañuy wéet bu ñu commencé wax ay waxu Macky Sall ci ay alalu Sénégal yu mu sàcc maanaam di fi toog nga lim ko ay année doo yeggali boo fi toogee di wax ay Macky Sall si ay maanaam ay ay ay mbiru euh, euh, nu ma ko ba a waxee injustice yoo xam ne teg na ko doomu sénégalais di nga ko wax ay at doo ci pare. boo fi toogoon di wax ay Macky Sall doomu sénégalais yu mu noot di nga ko wax ay weer doo ci génn mais dafa am benn affaire boo xam ne moom moo important te doomu sénégalais yëpp war koo mën a bàyyi xel Macky Sall est l'élément le plus dangereux du Sénégal xam nga caay-caay gi nga yaakaar ne mi ngi ci yéen yëpp boo ko dajalee nga boole ko lépp mi ngi dajaloo ci benn nit boobu muy Macky Sall xam nga tey ñun ñu ngi wax jële fi Macky Sall pour ay élection Macky Sall pare na ay élection ba teg ko de côté moom mi ngi ñuy xaar xam nga ñu ngi wax jël jël génn xeex ak Macky Sall Macky Sall pare na loolu yëpp mi ngi ko teg de côté di ñu xaar importance bi am mooy il faut que doomu sénégalais yi nekk déterminé wu il faut qu'on soit déterminé il faut qu'on soit déterminé il faut que les sénégalais soi déterminés ku déterminé wul mënul xeex ak Macky Sall c'est pas possible ay caay caay. ak ay xalaat yu ñaaw ak ay xel yu ñaaw ak ay wax yu ñaaw xeexul ak Macky Sall Macky Sall li nga calculer yow loo mën a calculer ci àdduna fekk nga moom mu calculer ko ba pare yow foo mën a départ fekk nga waa jooju yegg fa ba pare yow loo bañul fekk nga moom bañu ko il faut comprendre se chose yow loo bañul ci Sénégal rek fekk na Macky Sall bañu ko donc pour nga xeex ak nit ku mel noonu il faut nga déterminer soo déterminé wul munoo xeex ak Macky Sall benn nañu jëli suñu ay carte d'identité loolu c'est important comprendre leen de ngeen dem jëli seeni ay carte d'identité parce que amul carte d'identité déjà mënoo voté coow li lu mu bari bari bari bari les six millions d'électorats li ñuy wax ay quatre mille cinq cent bureaux yi fictifs yi ngeen di jooy loolu yëpp dafa am fu mu wër fu mu wër dafa am lu ko tënk boo amul carte d'identité mënuloo voté c'est pas possible donc wax ji yëpp zéro la donc nga dem nga wuti sa carte man de am naa sama bos lijjanti naa sama bos man am naa ko ma laaj doomu sénégalais yëpp ngeen dem lijjanti seen carte d'identité boobu benn la ñaareel bu leen bàyyi lu leen distraire do not be distracted comme li ma leen wax moo ma dal man je ne suis am distrait I'm par exemple il faut nga xam Sénégal pour nga xam nooy dealer ak sénégalais sénégalais quatre vingt pour cent liy génn ci gémmiñam ay jaaxaan la dañuy génn ñu reetaan ak yow def ak yow yëfu caay-caay bu ñu paree ñu woo ci suuf wax la yeneen wax yoo xam ne méngoowul sax ak li nga xam ne moom lañ doon def donc yooyu boo leen ko comprendre rek rek doo leen jëlee mbir mi personnel nanu bàyyi nitu Idrissa Seck yi di jàpp di xëcc nitu Sonko yi fële di jéem a divertir opposition bi di ñu jéem a tas di ñu jéem a distract bàyyi génn leen ci mbir moomu il faut ngeen comprendre ne dañu soxla concentration totale we need full concentration il faut ñu concentré wu ci li nga xam ne moom moo ñu tax a jóg du suñu diggante du la la diw ameel du li la diw def du li la diw wax c'est pas ça le problème en ce moment on est à vingt jours des élections présidentielles au Sénégal yeneen réew yi normal yëpp bu doon Amérique tey nit ñaa ngi ci àll bi di campagne nit ñaa ngi dem porte porte di fëgg buntu yi nit ñaa ngi conscientiser doomu aadama yi pour lan pour ñu sanctionner président bi fi nekk. donc pour sanctionner Macky Sall du kaar yi bu leen bu leen ne vous concentrez pas des des des milliers de personnes yi muy fay déedéet. sama waxu démb mooy nekkaat sama waxu tey nee naa leen depuis addinay démb du ma mës a toog ma ne doomu aadama parce que xaw ma ni ngay reeree xaw ma luy sa moyen xaw ma nooy dundee duma toog ma ne la bu ñu la joxee bul jël awul never say that ku ñu jox alal Macky Sall ku mu jox kopparam jëlal mais bul ko voteel ça c'est clair parce que Macky Sall c'est un malheur pour la Sénégal comprendre leen bu ñu leen ko waxee nag ci côté yëpp lañ ko waxee xam nga kiy wax ak yéen nee nañ la weddi gis bokku ci xam nga li ngeen ma wax la toujours damay dugg ci réseaux sociaux ñu ne ma yow bi nga demee Sénégal ak léegi nekkoo fa di def lii nekkoo fa di def lële Amérique rek léegi da nga am problème connexion xam nga ne boo nekkee Sénégal ci terrain nga bëgg liggéey fu ma mën a dem ci Sénégal filmer na yor naa film yi live I have everything that I need to have live and understand what this man is doing to us comprendre vraiment li ñu Macky Sall di def Macky Sall c'est le président le plus malhonnête de l'histoire du gis nga Macky Sall boo ko xalaatee ci dix moom mi ngi ci cent dix boo ko xalaatee ci vingt mi ngi ci trois cent soixante il faut comprendre que gis nga ku dem ba na jàkk ci li Macky Sall di def billaay wallaay doo tal Ablaye Ndiaye mu nekk Saare Koli Sall déedéet you not gonna believe doo tal loolu xam naa lu bare baree bari tey dina leen jaaxal lu tax waa ji léegi il ne se concentre plus du minimum parce qu'il y a le maximum déjà dafa am li ëpp fulla fayda Sénégal xam nga boo demee ci dëkk nga gis dans quinze millions de la population presque dix disons presque douze millions de la population du Sénégal ci ci ci ndóol la ñu nekk non ëpp na loolu disons quatorze millions de la population du quinze millions du Sénégal ci ndóol la ñuy dund tey da ngay dem ci ay dëkk yoo xam ne sama diggante ak yàlla nit ñi amuñu ndox mu set bu ñu naan comme li ma leen wax rek j'ai les preuves da ngay dem ci ay dëkk yoo xam ne école yi ñu fa bàyyi woon xam nga boo leen bàyyee xel y a des années y a quelques de cela wala quelques mois de cela dama leen daan wax ma ne leen ñun suñu village natal école yi fa nekk sa ñoo ko defaral suñu bopp. da ngay dem ci dëkk yoo xam ne tey wallahi billahi dispensaire dëkk bi alcool rek moo fa am roubine alcool alcool kese moo am ci hôpital bi alcool kese. moo am ci hôpital bi imaginel hôpital boo xam ne ay nit dañ fay wasin ay nit dañ fay ñëw bëgg a dee ay nit dañuy am ay problème cardiaque ay nit dañuy am ay problème psychologique façon problème bu ne doomu aadama yi bu ñu ñëwee ci hôpital bi docteur bi alcool rek la am pour offrir la loolu je l'ai en première main first hand xam nga yooyu boo ko gisee réalité yooyu yëpp nga dund ko amatuloo temps pour toog ne ma sàmba nee na yaa gën ñaaw diw sàcc na la sa sa douze dollars euh, keneen ki sàcc na sa sa onze dollars c'est des réalités y a des réalités qui se posent chez dafa am ay réalités yoo xam ne ñoo nekk suñu dëkk dafa am ay réalités yu nekk suñu dëkk il faut savoir que le Sénégal vit un moment très grave te lim leen di woon c'est seulement c'est seulement un pour cent liñ leen di woon un pour cent wu problème mu Sénégal yi la un pour cent problème mu senegal lañ leen di woon li ngeen di gis ci télé yi c'est pas ce qui se passe au Sénégal loolu un pour cent wu problème mu senegal la il faut le savoir xam leen ne bu ñu sanctionné wul Macky Sall Sénégal dina yegg ci catastrophe boo xam ne yéen ñëpp di ngeen toll fi ngeen di toll ñun ñooy raw Central Afrique xam leen loolu bu ñu sanctionné wul Macky Sall ñun ñooy ëpp problème ci àdduna bi dans quelques mois xam nga soreetul par exemple tey élection yi c'est dans disons aujourd'hui c'est le 4 c'est vraiment le 4 aujourd'hui donc dans exactement vingt jours mooy élection présidentielle si on ne sanctionne pas ce bandit de la République billahi wallahi tallaay Sénégal on va dinañu dund dundu bi gën a jafe ci juróomi at yi di ñëw te dina ko def juróomi ñaari at anyway juróomi at yi daf ko wax rek pour le moment balaa balaa ñu koy falaat mais buñ ko falee dina ko changé waat pour defaat ko juróom-ñaari at il faut savoir que naqar bi doomu sénégalais yi di dundu tey boo leen ko xamoon doo leen tal sax xuloo ak sa voisin waxatuma laa xuloo ak beneen doomu aadama naqar bi dox Sénégal tey ku ko xam en réalité billahi wallahi tallahi lazim billahi wallahi tallahi di nga comprendre ne ndekete xuloo ak sa sa gis nga nit bu ñëwoon jam la paaka sax da koy baal tellement que le Sénégal va va mal tellement que le Sénégal va mal mais il faut savoir que comme li ma leen di wax rek weer yi di ñëw du saagante ak defante ku la saaga baal ko ku la xas bàyyi ko ku la wax lu ñaaw romb ko il faut savoir seulement que Macky Sall dafa war a daanu loolu rek mooy suñu solution Macky Sall daanu rek mooy suñu solution ku la saaga ba ko déglu li ma lay wax de ku la saaga nee naa la tontu du forox tontu du forox ndax yéen ñi may bàyyi xel gis ngeen ne bi may wax ci Youssou Ndour ça fait seulement peut-être deux à trois mois de cela Youssou Ndour bi may def lu ñaaw ça fait tontu du forox tontu du forox da ngay bàyyi ba mbir mi yëpp jaar yoon bu boobaa koo am pour defantel nga defanteeg moom koo am pour tontontel nga tontonteeg moom mais il faut seulement savoir que en ce moment en ce moment guddi yi ñu toll du defante bi du suñu diggante c'est pas ça ce qu'on a entre nous c'est très petit diw wax na la lii diw de mi ngi lay laayval diw mi ngi lay xas diw nee na lii diw bindal na la lale diw postel na la c'est pas ce qui est important pour le Sénégal en ce moment xam nga doomu aadama bu dul égoïsme ak selfish nga juddoo ci ndey ju baax nga juddoo ci baay ju baax ngay lekk di naan di nelaw di yeew sa sa waa kër nekk ci jàmm nga dem ci dëkk wallahi billahi tallahi boo gisee doomu sénégalais yi ba léegi waxuma la taalibe gi loolu ba léegi tey la gën a waalo gën a aay boo demee dëkk yu mel ni Vélingara billahi wallahi bi ma fa duggee dama defee ne amina ghost town xaw ma ndax xam ngeen lu ghost town mean en anglais dafa mel ni nga dugg ci dëkk yooyu nga xam ne par exemple nit nit dëkku fi quoi comme boo fa duggee six heures du matin nga xool dëkk bi dangay ngay defee ne lii du dëkk comme ay nit dëkkuñu fi. kër yaa ngi moche dëkk baa ngi jaxasoo lépp mi ngi ne dëkk baa ngi lëndëm donc yow sa bopp tu te demandes dans quelle ville dama billahi wallahi dama ñëw ma dox ba ci koñ c'est une réalité billahi wallahi tallahi dama dem fi ma fanaan sama kër euh, sœur sama kër petite sœur kër bi mu fa tabax ma fanaan fa ma daw euh, ak sama gars yi ba ci tali bu mag bi xam naa ne fa la ñu dëkk fa sama kër yaay kër gi ma kër gi ma màggee écoutez ah kër gi nga xam ne def naa fa presque quinze ans à vingt ma ñëw ba ci koñ bi ma jàdd à man laaj waa ji man laaj benn waay ma ne ko mais euh, euh, sëñ bi mu ne ma waaw ma ne ko sama kër yaay lay laaj mu joxoñ ma kër gi mu ne ma sa kër yaay a ngi nii mais pour vous dire billaahi wallaahi fi kër gi placé woon ak li ma gis mu wóor ko moo tax ma réer dama réer parce que pour man nekkuma woon ci quartier bi je n'étais pas dans le quartier mais ma ne les réalités sont tellement graves bu buñ la ko expliquer mënuloo ko comprendre ma jóge ci loolu ma jël yoonu àll ma jël yoon boo xam ne dama ko daan jël tout le temps jël tali tali de du goudron parce que goudron bu leen fàtte damay dégg toujours tey ñuy wax goudron yi nekk ci àdduna bi xam nga il faut pas qu'on se xam nga banque mondiale bi mu demee ba sonn ci transportation Afrique ak dimbali Afrique li mu def déjà li ñu def ak euh, ndimbalu oko ECOWAS dañu defar ay tali pour connecter réew yi yëpp donc bu ñu juum ñu yaakaar ne yenn tali yi loolu gouvernement Sénégal wala Macky Sall wala war da moo ko fi def déedéet c'est pas comme ça tali yooyu banque mondiale moo ko tabax fépp ci adduna bi donc am na tali yooyu may nañu Vélingara defe naa bu ma juumul vingt trois kilomètres xaw ma vingt huit kilomètres lañ leen may donc tali bi jógee diggu ta euh, Vélingara dem Basse après ñu tabax fa ñaari euh, ñu def fa yeneen ñaari goudron ci biir dëkk bi benn bu traversé est ak benn bu traverse est euh, ouest ak nord et sud donc donc ce qui est important ñi xam naa ne que ñi may déglu ñu bari Vélingara la ñu dëkk mën nañu confirmer li may wax mais bi ma jógee Vélingara ma ne léegi damay dem ci village nataal bi ma ma jëlaat yoon comme ni ma leen ko waxee mu doon tuuti goudron après tali bu xonq mais au nom du créateur bi ma duggee ci tali bu xonq bi xam leen ne noor la ñu nekk yéen ñi xam Afrique mooy tawul en ce mais y avait tellement de déviation ak tellement de problèmes c'est c'est grave man dama dem xool ma ne mais attends bu dee ci noor la ñu ne maanaam tawul tali bi gravé nii bu tawee nooy def ma laaj loolu village waay ñu ne bu tawee yenn taw yi kenn du génn sa kër donc imaginel urgence boobu nga nekk ci dëkk bu amul hôpital nga nekk bu ci dëkk boo xam ne dara doxu fa taw am nit war a dee nga war koo jël yóbbu ko hôpital ci taax nooy def da nga koy bàyyi mu dee imaginel xam nga li may wax boo ko dégloo boo ko analyser di nga trouver exactement li may wax nan la mane ne wallaahil azim wallaahil azim boo génnee nga bëgg a yóbbu malaat boo jëlee malaat ci noor nga xam ne tawul doo mën a yegg fi nga jëm ndax ay pax yu bon donc ce qui veut dire que ce qui veut léegi bu tawoon ba tali yi fees del bu tali yi feesee del partout naka ngay def pour yóbbu ay malaat commence se fait nga dëkk ci dëkk bu mel noonu ñooñu nekk ay dakaar di pasar pasare ay ay maam Ngor ay nu mu tuddati ay maam Ngor Diazaka mooy suñu gars yi ay léegi ay El Hadj ay léegi bu ñu paree ci loolu ñu ne euh, euh, le fou du village là euh, le ministre ki a qui a pris les gros nit ñu mel noonu nekk ci gouvernement nga pare loolu Moustapha Cissé Lo les insulteurs de la République ñun suñu président ñu ko nee fajal gàcce bi mu amatul lu mu fajee gàcce mu ne gars yi génn leen saaga xeex ak ñoom génn leen defante ak ñoom loolu mooy wax ji quoi donc ñun suñu président benn solution biñ koy digal mooy mu génn defante ak doomu sénégalais yi c'est pas pour servir le Sénégal mais c'est pour se battre contre les sénégalais donc lii yëpp gis nañ ko. gis nañu lépp loo xam ne moo nekk senegal léegi doomu sénégalais yi ngeen war a toog ba kañ pour xalaat kañ ngeen di xalaat da ngeen di toog kañ koo leen di xaar da ngeen di xaar pour ñe leen ñu ne leen seen kër lakk na Sénégal pour ngeen jóg taxaw wala da ngeen di jóg pour ne leen Sénégal yëpp lakk na pour ngeen jóg taxaw mais sa fait mal au cœur ça fait mal au cœur boo waxee ñu ne la non yow doo dem Sénégal non yow bi nga demee Sénégal pourquoi génnuloo waxuloo pourquoi yuuxuwuloo pourquoi xeexuloo why it has to be about mi lu tax problème mu Sénégal war a nekk man pourquoi ça doit être moi ñaata yoon laa leen war a fàttali ne que man du ma employé gouvernement wu Sénégal man je suis un citoyen lambda man citoyen sénégalais la ma kenn dara man je n'ai pas d'explication pour man waruma expliquer benn doomu sénégalais dara nothing benn doomu sénégalais bu juddu Sénégal rek man waruma laa wax dara donc yéen ngeen toog ñun ñu génn di leen conscientiser di leen wax lu ñu gis seen réew déedéet yéen ay xaste ngeen yaakaar ne moom la nit ñi am jotam on n'a pas le temps de ça comprendre leen am na Pape Alé Niang lu mu doon wax nee na ndeysaan mu ne nit koo jàppee dof xamal ne mi ngi wut ay garab yum la fajee donc yéen ñii yaakaar ne la gars il fu fou wala le gars il est ceci wala le gars il est cela mais léegi yéen ñi doon xalaat ne peut-être intérêt moo may yóbbu Sénégal kañ lay jëli intérêt boobu parce que man dem naa Sénégal ba ñëw te tooguma sax fu ñuy waxtaanee intérêt je vous ai suñu ay problème du benn xam nga nee na wax naa leen loolu nee naa leen sénégalais nos problèmes ne sont pas les suñu problème yi duñu benn am na koo xam ne peut-être kooku paas moo ko intéressé am na koo xam ne tey peut-être lekk moo ko intéressé am na koo xam ne tey peut-être xaalis moo ko intéressé mais peut-être am na si aussi koo xam ne loolu yëpp intéressé wu ko dafay liggéeyal yàlla te liggéeyal yàlla yemul tout juste ci jàkk déedéet kuy liggéeyal yàlla yemul tout juste nga dem jàkk nga julli wala nga togg laax nga saraxe ko déedéet wax ju baax sax liggéeyal yàlla la wax ju baax liggéeyal yàlla la saa yoo tasee ñaari nit saa yoo séparé ñaari doomu aadama yàlla mi ngi lay rëbb malaaka yaa ngi lay rëbb nit ñaa ngi lay wax lu ñaaw comprendre loolu mais y a toujours y a toujours y a toujours quelque chose qui me manque chez les da ngay jël wax bu am fulla ak fay danga wax leen ko ñoom ñu jël ko di ko caaxaane imaginel keroog dama ne sama benn nit daf ma ne mu ne ma euh, Ousmane yow bi ngay jógee Sénégal tàgguwuloo kenn da nga jékki-jékki rek nga ñëw nga ñibbi si nga yegg ma ne ko exactement loolu la ma ne ko xam nga luy différence su Sénégal ak Amérique ñu ne ma waaw ma ne ko man xam naa ne tey buñ ma reyee ci yëfu dof Sénégal am na ñoo xam ne soxla nañ ma y des personnes qui ont besoin de moi c'est pas la pen ngay ngay suicider wu you don't need to commit suicide xam nga am na suicider am na am na xeexu ngor am na deewu ngor am na suicide am deewu ngor xam nga tey deewu ngor mooy lan nga dem ci xare ngay xeex nga ànd ak ay nit yoo xam ne dañu gëm li ngay def comme bi ngeen ñu gisee ci xeexu wan million ba ñun ñëpp a génnandoo xàccandoo dóorandoo ñëpp a génnandoo doxandoo benn dox loolu san ne veut pas dire que bu subaa yow da ngay yeewu nga dem nga jàmmaarloo ak ay nit di leen wax lu ñaaw wala di leen saaga buñ la dóoree nga ne walla je suis un voilà kii la maanaam ah dañ maa tooñ gis nga xaañ nañ ma déedéet c'est pas comme ça moi je suis très prudent nit laa koo xam ne dama gëm sama réew dama gëm sama réew dama gëm sama réew dama gëm sama réew dama gëm sama réew man dama gëm Sénégal ay believe in my country balaa ngay xam loolu nga may sa bopp temps tu vas le comprendre doo ko comprendre tey you not gonna understand it today parce que comme li ma la wax je n'ai rien à prouver dara lu ma prouver doomu adama ay I owe nothing to no one amelu ma kenn dara amelu ma kenn naa one centime amelu ma kenn benn explication I owe nobody not one explanation amelu ma kenn benn explication kan laa ameel dara man man li ma yaakaar man man Ousmane yaakaar naa ne que en tant que citoyen sénégalais amel naa Sénégal njukkal man Sénégal comme niñ koy waxee toujours Sénégal laa juddoo Sénégal may ma opportunité ma jàng à bas âge Sénégal may sama ay parents opportunité ñu dëkk ñu nekk ci jàmm donc ça se voit que euh, euh, amel naa Sénégal dara amel naa Sénégal dara man amel naa Sénégal dara man sama problème c'est le Sénégal rek c'est pas des personnes xam nga il faut nga comprendre dërëm ak dërëm a mën a ànd quatre-vingt-dix pour cent nit ñi may jëflanteel bokkuñu fi ñu jëm c'est ça les réalités donc il faut nga concentrer wu ci Sénégal man bu ma àndee ak nit sax ba ci yàgg ma gis ne que yow li nga gëm ak li ma gëm du benn sax da ngay gis ne que sama réaction ak yow day différente comme maanaam ni may jëfan ni may réagir ak yow dina différent tuuti donc dama bëgg doomu sénégalais xam dara ñu xam ne que jéggal leen ma leen ñu xam ne que senegal comme li ma la wax l'heure est grave du heure xeex déedéet du heure xuloo déedéet du heure xiiroo déedéet du heure ŋaayoo déedéet Sénégal heure bi dafa grave senegal fi mu toll nii daf ñu soxla. le Sénégal a besoin de Sénégal daf ñu soxla Sénégal guddi toll dañu soxla Sénégal daf ñu soxla balaa ngaa xam ne Sénégal moo ñu soxla nga dem Sénégal boo demee Sénégal di nga comprendre lépp mais tant que nekkuloo Sénégal nga toog sa biir kër ñu lay wax di la jottali ay message mais tu ne comprends pas doo comprendre wallaay Sénégal daf ñu soxla le Sénégal va très mal Sénégal li fa nekk tey catastrophe la xam nga. boo toogee sa biir kër ñu ne la senegal mi ngi dox danga nga laaj ki lay wax ne Sénégal mi ngi dox ci ban parti senegal la dëkk danga ko war laaj da nga ko war a laaj sëñ bi mu ne la waaw nga ne ko yow ban boor nga dëkkee ci senegal mu wax la ko bu la ko waxee bu boobaa nga xoolaat li muy wax lan la parce que imaginel ku de ku jóge Sénégal euh, nga commencé parce que Sénégal en fait boo xoolee. defe naa bu ma juumul ça fait euh, sept cent kilomètres damay damay yokk tuuti rek damay yokk euh, kilométrage bi tuuti donc euh, six cent kilomètres de longueur peut-être quatre cent kilomètres de largeur superficie bi donc defe naa bu ma peut-être dewuma jeexaluma largeur bi mais je vous promets que longueur bi jeexal naa ko mooy jóge naa dakaar fi géej gi yem ma dem ba Vélingara dem ba frontière u Gambie fi nga xam ne foofu la Sénégal yem donc euh, ce qui veut dire que euh, ma jógewaat aussi Sénégal euh, dem côté Farafeñe côté Gambie boobu jéggi pont boobu nga xam ne moom la Macky Sall defar pont wu Farafeñe bi ñëwaat encore booru Kaolack ñëw côté yooyu ñëwaat ñëwaat Dakar donc ce qui veut dire que dans le norme bu lu mu bon bon je peux dire que j'ai fait les trois quarts du Sénégal mais gis nga trois quarts du Sénégal yooyu sama diggante ak yàlla ak yonent bi même dakaar bi nga dëkk même dakaar y a beaucoup gis nga problème mu Sénégal Dakar la ëppee sax ci biti parce que population Dakar bi léegi dafa over over overwhelmed par exemple di nga toog ci embouteillage ay heure ngay jéem ay yegg de point A à point B balaa may dee ñu ne la autoroute à péage balaa ngay yegg ci autoroute à péage bi sax nga jommi mais da ngay jóge fi nga dëkk à certains parties de euh, de Dakar nga jóge ville. j'espère que yéen a ngi gis je je je m'excuse j'espère que affaire baa doxaat encore parce que nee na connexion bi mi ngi doon déconné encore euh, léegi il faut que ñu comprendre dara one million marche euh, benn but bien déterminé moo ñu tax a jóg euh, dama bëgg a concentré waat ci lii nga xam ne rek moom moo important pour doomu sénégalais am ko pour njëriñ guddi ñu toll ñu ngi def liggéey bu rafet Sénégal déjà comme niñ koy waxee toujours ñu ne liggéey bu amee américain dafa ne wax lu baaxu nit yàqul sa lu baax. Euh, yàlla def na man dem naa Sénégal nekk naa fa ak suñu sœurs yi ak suñu frères yi on a tout on a tous contribué pour le Sénégal meilleur euh, dox nañu ci ci mbedd yi joxe nañu ay flyers on a contribué financièrement on a contribué ak suñu sueur maanaam ak suñu énergie euh, kenn woowuñu fenn foo xam ne wuyuwuñu fa pour pour encore mieux Euh, élaboré pour maanaam gën a yaatal waxtaan bi euh, on a contribué avec ab de yeneen nit toujours li may wax nee naa leen euh, du ñun ñooy cas bi le Sénégal c'est pas nous il faut ngeen comprendre loolu xam nga dëkk bu demee ba nga bëgg ko identifier ngay compter juróomi nit wala juróom-benn nit y a un grand problème loolu du Sénégal Sénégal bi ñuy wax. je parle de du Sénégal de tous les Sénégalais bëgg naa boo leen jëlee Tunkara euh, xaw ma liveur ngeen ñuy wooyee xaw ma conscientisateur ngeen ñuy wooyee xaw ma loo leen ñuy wooyee xaw ma patriote je ne sais pas quoi quoi quoi xam naa ne téeméeri tur ak juróom-benn euh, am nañ ko mais moi je me prends seulement que je suis la voix des sans voix maanaam dama nekk koo xam ne damay waxal ñi nga xam ne mënuñu wax parce que Sénégal tey boo fa yeggee ñu mel noonu ñoo fa bari da ngay dajeeg ay doomu aadama yu bari yoo xam ne naqar baa ngi seen biir xol ñu woo xëcc la ñu ne la tunkara nga ne waa ñu ne vraiment maa ngi la doon suivre ah man de naqar bi ak naqar bi ak naqar bi ñu expliquer la lépp mais léegi yow da ngay gis ci bëtu borom nekk lii muy wax noonu bëgg na koo wax waaye mënu koo wax ça c'est un problème li muy wax. bëgg na ko wax waaye mënu koo wax maanaam boroom am na lu bari lu nekk ci moom loo xam ne bëgg na koo wax waaye mënu koo wax donc ñun ñooñu la ñuy waxal on est la voix des sans voix nun dañuy ñëw pour waxal ñii nga xam ne bëgg na noo wax waaye mënuñoo wax c'est ça la réalité ci biir si suñu biir nag di ngeen fa trouver ay complications yu bari comme sama benn yaay bu ko wax démb nee na làmmiñ ak. Euh, euh, bañ dina bañ dina matt làmmiñ ba mu nàcc ci biir te kenn du ko yëg donc bu leen yaakaar ne on est sans problème ñun ñoo leen ëppi problème parce que yenn saa yi damay toog guddi du ma nelaw imaginer lan moo may tere nelaw yu ñàkk fayda dangay gis benn nit bu am problème personnel fale ku la bëgg a fii ku la sàcc fale ku la bëgg wax lu ñaaw fale kuy xeex ak yow fale ku ragal ne par exemple am na loo ko defal di nga ko di nga ko weeje muy xeex ak yow wala ku la leb nga bañ muy xeex ak yow ay affaire yu ñàkk fayda donc yooyu yenn say il faut ñu mën koo jël dégager ko de notre cerveau pour ñu mën a concentrer ci li nga xam ne moom mooy li important Sénégal Sénégal li important du Ousmane Tounkara ak ki muy joteel du diw ak ki muy xeexal déedéet c'est pas ce qui est important li important mooy problème yi sénégalais yi am Sénégal ñun biñ fa demee mais nu on vivait comme des rois ba ngeen jéggal ma wax ji ngeen jéggal ma wax ji ngeen jéggal ma waxeewu ma ko noonu moo mënuloo koo comprendre te mënuloo faj problème mu àdduna yëpp il faut que ça aussi ça soit benn doomu aadama mënta faj problème mu àddina da ngay bay sa da ngay def rek li nga xam ne moo la ci war li ci des nga bàyyi ñeneen def ko c'est ça la réalité da ngay def yow li la war li ci des nga bàyyi ñeneen ñi tamit def seen wàll c'est ça la ma ma rek fan yi moom dama jël décision nekk vraiment dinaa def ñaari fan yu ne bu ma ko yàlla mayee bu ma yàlla mayee kattan bi ma génn ma waxtaan ak yéen mooy déjà ñu delloo siwaat xel yi ak xalaat yi parce que il faut savoir que deux mille dix neuf bii ñu toll benn opportunité la rek bu ñu am te wallahi opportunité yu mel nii da donc come very often xam nga loolu xewoon na fi euh, ci taaw Barack Obama je vais dire en 2004 en 2004 2004 non 2008 ex excuse-moi 2008 yeewu nañ fi un noir américain voulait de notre pays ñëpp di ko euh, caaxaane un moment donné ñëpp jóg ak doole ñun ñëpp ñu jóg ak doole bi ñu jógee taxaw wallahi on a sanctionné le président euh, Bush Bush sax sanctionné wuñ ko mais on a sanctionné les républicains John McCain moo ñëwoon euh, defe naa premier mandat bi euh, premier mandat Obama wala deuxième mandat non premier mandat Obama John McCain la woon McCain deuxième bi Mitt Romney mais on a sanctionné les républicains donc euh, gis nga sanction boobu lañu war a defaat ki tuddee boppam APR Macky Sall dafa yab sénégalais yi ci Macky Sall rek ngay gis ay jàkk yu ñuy inauguré xam ngeen depuis temps wu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam xam nga ñaata doomu aadama yu baax ñoo tabax jàkk xam nga ñaata doomu aadama xam nga man man ci sama xam-xamu bopp duma tudd sama bopp ci loolu comme li ma leen wax rek yooyu c'est pas intéressant xam nga ñaata doomu aadama yu nu xam ñoo dem di tabax ay jàkk te kenn xamu leen badi noo dem bañ nañ ko ba boolu jàkk sax boo ciy def xaalis dañ la ne nga def ko ci te bañ kenn bañ laa gis c'est ce qui est important gis nga jàkk boolu jàkk sax maanaam boo demee keesu jàkk nga ciy dal ay koppar sax waroo nangu kenn gis la waaye déedéet ñun suñu gouvernement dañuy tabax jàkk après buñ ko tabaxee ba pare ñu woo ay sabar ñu ñëw ci buntu jàkk ji xam nga sa se voit parce que boo demee di déglu Macky sàll bi ñuy ñaan yàlla ci coupe du monde bi mu naan ngeen ñaanal ñu salaatu ala nabi wala salaatu ala wala ku nekk salaatu boo xam nga ñaanal ñu ci donc ce qui veut dire que le même cette personne il n'a pas de mémoire yàlla xamul yàlla Macky Sall jàngul yàlla xamul yàlla man ba léegi bu ma déggee sama yenn mbokk tukkuleer yi ñuy associé ak Macky Sall ça me ngeen jéggal ma mu doon yeneen cas yu important yoo xam ne fan boo fi toogee di nga def quatorze ans ba quinze ans ci live bi di wax sans arrêter problème yi doo ko paree wax mais beneen cas bi important te xam naa bu ma paree tey dinaa am ñu ma woo pour jël yeneen information de plus xam nga boo leen xoolee tey si suñu consulat yeeg suñu ambassade ambasadi ambassade yi surtout wallahi amuñu health care xaw ma ndax xam nga luy health mooy euh, couverture de maladie mooy tey nga ñëwoon Euh, moo tax lu bari ndeysaan doo leen ma dégg parce que man loolu daf may frustré nga bëgg a génne information ñuy caaxaane information yi ngay génnee di ko di ko saboté donc euh, loolu ngeen euh, comprendre ne surtout ak man j'ai beaucoup de problèmes avec avec les lives parce que ñun defe naa li ñuy wax dara daf leen arrangé wu leen te ñun ku ñu woo ci ay caay-caay duñ la wuyu ku ñuy woo ci ay caaxaan aussi duñ la ci faale donc ce qui veut dire que ñun arrangé wu ñu leen parce que nous, on a refusé d'écouter de tous les côtés. Euh, donc, euh, leneen li am importance ma leen koy wax donc nga ñëw tey ma jox leen ay exemples yu ndaw yoo xam ne ngeen xam ne ñun suñu gouvernement ils ont des problèmes sérieux euh, avec no vérifications on trouve que tey boo demee ci ambassade du Sénégal bi nekk Washington DC makkan defe naa makkan ñëpp dégg nañ ko ku ko déggul xam ku ko xamul yi dégg nga ko c'était parmi les personnes mooy Macky Sall ñooñu muy jël rek di leen récompenser ci wax lu rafet ci moom parce que Macky Sall boo ko nee taaru nga sax da lay jël def la ci position donc euh, Makan on a trouvé que euh, Makan ndekete li ngeen doon gis tey par exemple président Macky Sall demoon ci dëju Habib Faye Habib fay mu Youssou Ndour c'est parce que jabaru Habib fay ñoom dañ ko jël nommé ko par décret indi ko ci ambassade du Sénégal bi nekk Washington DC man je comprends pas xam nga yenn say nous on se dit au Sénégal ndax ñun dañu am ay problème mental wala dañu am ay problème personnel parce que man comprendre ma man duma ma comprendre nous on se dit que ci ban Sénégal la ñu dëkk Sénégal ngay dem tey mu leer la ne que école yi jaarul yoon Sénégal ngay dem. mu wóor la nekk sa health care system mooy maanaam sa système de santé jaarul yoon Sénégal ngay dem tey ndoxu problème mu Sénégal bi campagne bi biñ koy ubbi ak problème mu ndox bi am Pikine adduna bi yëpp a koy dégg ñu am ci suñu ay yaay yoo xam ne nee nañu bu ñu demee root ndox ci teen ndox mi day xonq sangu sax mënoo ko ko defee waxatuma la ak togg te amuñu njëgu ndox mu set pour ñu mën a togg soo nga imaginer lu mel noonu euh, jéggal leen ma tuuti. waa sama sëriñ aleykum salaam xaaral euh, ma jéem a xool euh, nu may def pour euh, voilà attends ne quitte léegi xaaral ma jéem a xool nu may def pour pour jéggal ma une minute léegi yow man ma woowaat la ma ma ma def téléphone bi après ma wowaat la nga jël ah yaa ngi may dégg voilà jéggal ma une minute voilà Euh, donc euh, jéggal leen ma dafa am euh, suñu benn frère bu bëgg a participer comme niñ koy waxee rek ñun suñu toile bi c'est ouvert xam naa ci ay fan yu néew nag du ñàkk di ngeen di ngeen commencer gis ñu commencer interpeller suñu candidat yi parce que ñun Sénégal moo ñu intéressé te Sénégal bu la intéressé boo amee pour laaj ay question ci Sénégal di ko laaj donc ngeen jéggal ma tuuti rek ma ñëw ci kii bi ok baal leen ma je comprends pas asalaamaaleykum aleykum salaam xaaral sëñ bi maa ngi sama grand ziar naa la waaw ah, ziar naa la kooku suñu xarit la Malick Malick il est du Pastef international ah, donc bisimilah Malick gaa yaa ngi lay auditeur yaa ngi lay déglu bisimilah. asalaamaaleykum maa ngi euh, nuyu ñëpp di leen ziar. di leen baalu àq te di leen baalu àq. ñu lay fay. voilà voilà di leen ci di leen jox ku ci nekk sa waa ci waay. Mhm. waaw di la nuyu welcome back. jërëjëf voilà par rapport ak sa voyage bi nga defoon ak yooyu yëpp macha allah loolu yëpp nga def ko ngir Sénégal. jërëjëf voilà donc euh, macha allah ñoo ngi lay sant di la gërëm. di gërëm ñu ñuy déglu ñëpp. waaw te di leen sant ñoom it. voilà ci seen temps bi ñu jël ñëw expliqué euh, ko ci ñun. Mhm. voilà mi ngi noonu. voilà donc euh, Malick uh-huh. comme ni ma koy waxee toujours. Uh-huh. au Sénégal l'heure est grave. te xam nañ ne te xam nañ ne campagne bi ubbi na. donc euh, ñu bëgg a xam rek euh, yan matuwaay ngeen jël pour vraiment xale yi mën a génn voter ak lan ngeen di xaar ci jeunesse bi ak lan ngeen di xaar ci ah. citoyen sénégalais yi loo xam ne vraiment dinañu may ndam ci xeex bi ñu jëm parce que inchallah xeex xeex bi ñu jëm ñun ñëpp xam nañu ki ñuy ku ñuy ki ñuy xeexal te xam nañ ne que peut-être ce sera comme niñ koy waxee bii mooy opportunité boo xam ne Sénégal mën nañ ko changé pour toujours mais aussi bi mooy xeex bi gën a jafe bi sénégalais yi di rencontrer parce que ki ñuy xeexal du xeex xeex bu set he doesn't have he doesn't fight a fair donc léegi yow yow vraiment la ñu bëggoon laaj nga yaatal ñu ci sa xalaat nan nga yaakaare ne vraiment noonu la sénégalais yi war a mën a def pour dimbali euh, seen candidat vraiment Ousmane Sonko pour vraiment yàlla may ko ndam ci xeex bi ñu jëm incha allah euh, maa ngi Euh, ci invitation bi. Mhm. di rafetlu aussi kóolute bi nga am ba ma laaj ci loolu ci Sénégal parce que tuuti naa trop ci di ci wax. Mhm. mais comme ça yàlla moo ñu ci boole tamit dañuy def la nga xamante ne si moom moo ci suñu cër. Mhm. parce que li may def nii euh, Sénégal bu nekk am nga ci cër. ku ci nekk mënoon nga ko invité toog waxtaan ak moom ci loolu. comme ça yàlla daf ñu ci wërsëgal tamit dañ koy jël nga xam ne macha allah sant koy sante ko yàlla suñu borom. Euh, du man kese du Ousmane Sonko kese du yow kese du keneen ak keneen. Mhm. mais xeexu Sénégal la. Mhm. il faut nit ñi aussi. Mhm. xam ñun lan la ñu bëgg. gis nga yow. bi ngay dem Sénégal demuloo pour ñëw taxaw sa bànneexu bakket sa vidéo yi nii ngay def defuloo ko pour sa bànneexu bakket. dafa am lu tax nga koy def. <laughs> wallahi laa lay wax ni tàllaahi bu fekkoon ne kii rek la tax a jóg sa bànneexu bakket rek moom moo la tax a jóg li ngay am fii Amérique doy na la sëkk. soxla woo Mm-hmm. sa njaboot li muy am fii doy na leen rek soxla woo ko mm-hmm. mais dafa di mm-hmm. nit ku nekk dafa am cër boo xamante ne si moom la la yàlla jox moom mooy cër ban moom mooy bi ñu yàlla may ba ñu juddoo Sénégal yaroo yaroo fa màggee fa am fa sunuy waajur am fa sunuy am di jàmm sunuy xarit ak sunuy mag ak ñëpp ñu nekk fa te lu leen gaañ-gaañ ñu lu leen metti metti bu ñu feebaree ñu feebar lu leen dal daf ñuy metti donc bu ñu gisee loolu ñu nit ñun am nañu lenn loo moom mooy suñu warugar moom mooy ñu ñëw jël suñu loxo mm-hmm. buñ ko mënee dindi ñu dindi ko mm-hmm. te lu mën a dañ la mm-hmm. parce que Macky Sall ëpp ñu xel ëpp ñu xalaat ëpp ñu doole minorité la par rapport ak euh, ka nga xamante ne si ñoom ñoo nekk ci dëkk ba ñu nekk ci dëkk bi yëpp donc ñun ñun ñooy yeewu parce que mbajum kanam borom moo koy fajal boppam ñun ñooy yeewu ñu xam lu ñu bëgg waaw ñun ñooy yeewu ñu xam li ñu bëgg li ñu bëgg moom mooy lan mm-hmm. dañoo bëgg a état droit mm-hmm. ñu jël lépp teg ko ci yoon mm-hmm. lañu moom ñu jël ko kenn ëppalewuñu fa loo xam dañ la dénk du moomeel booy ci boo ko yoree da nga ciy toog di waxtaan ak nit waaye nga jël ko bëgg ko def sa yëf bopp ñu nit ñun dinañ la wan ne ñàkk ñu fay de mbir mi du sa yëf suñu yëf la voilà donc li def du dara Mhm. parce que dafa am ay jeu de damier yu nu teg. Mhm. mais nag macha allah yàlla dimbali nañu. Mhm. ñun ak ñoom ñoo jàngandoo. gënuñu ñu muus mu ñu jàll ñun jàll nañ ko. lu ñu teg rek ñun xam nañ ko. wax ji nag moom mooy lan moom mooy na Sénégalais yi dem jëli ji seen carte. électeur. ñu voté. wax ji yëpp dama lay wax. benn fichier amul ñaar fichier amul. benn rek la am. ñaari fichier amul ñetti fichier amul du moins mhm. benn fichier moo am mhm. ci fichier bi def nañ ci seeni tactique mhm. tactique yooyu yëpp ñun détecté nañ ko bul sonn te dara dañuy jaaxal parce que dañoo ñëw def ay abri provisoire yoo xamante ne xamuñu fan lañ ko def te diggante biñ ko def moom mooy fan moom mooy fa nga xamante ne si ñoom foofu la ñu jàpp ne foofu la ñuy perte parce que mosuñuy gañe Dakar gañew ñu Thiès gañew ñu Diourbel donc ñetti pôle yooyu noonu mu leer leen ne dañ ciy gaye dañuy dem te bu ñu demee dañuy perte ci loolu donc ñooñu la ñu defal ay abri provisoire te ñëpp dinañ ko détecter ba ñëw taxaw sensibiliser population bi ku ci nekk ñu wax la fan nga war a voter mhm. parce que loolu lu yomb détecter la mhm. yàlla dimbali na nañu dem nañ élection législative 2017 mhm. am nañ fichier bi leneen lu ci yokk xam nañ ko kon nekkul loo xam moom moo ñuy jaaxal <coughs> te muy dëgg nekkul lu ñuy jaaxal amul lenn loo xam mun nañ ko def rek mu jaaxal ñu lenn nag moom moo ci des moom mooy citoyen bu nekk mm. moom mooy na dem jëli sa carte mm. ka nga xamante ne si moom moo nekk sa wet mm. te leer na lay jëleegul kartam dimbali ko nga xool nan lay jëlijee kartam mm-hmm. tout simplement mm-hmm. boo jëlijee sa carte nga dugg ci biir portaay bi jéem a xool nan ak nan ngay def mm-hmm. pour foote fan lañ la fan lañ la yóbbu pour nga dem voter ñun nga dem foofu dem voter ji tout simplement y a leneen li si def nag suñu xeexu bopp la ñu dinañ ko def parce que bu fekkee ne macha allah waa Pastef ak waa Sonko coalition Sonko président am nañ jël nañ suñu matuwaay yëpp ci la nga xamante ne moom la ñu war a am ci mandataire ci nga xamante ne moom la ñu war a am ci euh, ci euh, représentant yooyu yëpp teg nañ ko ka ci nekk ñoo ngi lay formé ka ci nekk ñoo ngi lay defal euh, ñoo ngi lay defal lañ la war a defal mm-hmm. et incha allah bu jour boobaa la ñuy xam mm-hmm. léegi nag population bi parce que ñun def nañ li ñu war a def mm-hmm. bi cotiser jotee cotiser nañu. Mhm. pour Sonko mën a dem mën a dem mën a dem euh, kii ni ñu koy waxatee euh, campagne. Mhm. bi wax jotee Ousmane Sonko taxaw na wax. Mhm. bi jëf jotee nag ñoo ngi taxaw di jëf donc nañ ñu nit ñi fekk si ci def boobu noonu ñuy jëf parce que jëfuñu ko pour sunu intérêt personnel mais dañ ko jëf pour sunu intérêt réew. looloo ñu koy def. donc dellu di sensibiliser population bi pour ñu jóg ñu mën a xeex bi. te xam ne xeex bi du xeexu benn nit du xeexu ñaari nit mais xeexu <laughs> ko affecté waa parce que sunu sunu sunu rek lañuy topp voilà. dëgg euh, euh, aussi. loolu vraiment ñu uh-huh. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. te uh-huh. aussi fan yi dafa am euh, cas important parce que toujours comme ni ma koy waxee. nee na ah. nee naa doomu sénégalais yi xam naa question yu bari mënuñu la ko laaj yow parce que comme li may wax toujours nee naa question ki mu intéressé nga ko mën a laaj mais du ñàkk mhm. du ñàkk aussi am na yoo xam ne buñ ko gisee wala ñu dégg ko dafa baax ah. dafa baax ñu waxtaanee ko ci suñu biir parce que li ma doon waxee ak jeunes yi nee naa leen ah. dama leen ne nañu concentré wu ci li nga xam ne moom moo ñu moom moo ñu intéressé Euh, parce que ñun li ñu intéressé tey mooy doomu sénégalais yi génn voté mhm. xiiroo bi ak ŋaayoo bi defe naa buñ ko déggandoo ñun ñëpp gis nañ ne njiitu Pastef bi woowul kenn pour mu manque kenn respect nee nañu nañu campagne avec le maximum de respect nañu indi mhm. indi ay débat d'idées indi ay xalaat mhm. indi ay jëf wax li nga xam ne moom mooy servir Sénégal mais mais fan yi nag dañuy gis ci net bi lu bari ay ay jeunes yiy jóge fii ñiy nekk ci Idrissa Seck di saaga waa Pastef wala ñiy nekk Pastef di xëccoo ak ñoom donc yan yan conseil vraiment nga mënoon jox jeunes yooyu tamit ñu yokk ko ci seen xalaat rek parce que man li ma leen wax defe naa nee naa leen c'est important ñu comprendre ne il faut ñu concentrer wu ci li nga xam ne moom moo important en à vingt jours des élections du ay xiiroo ay ŋaayoo ci biir opposition bi léegi dama la ciy apporter benn benn éclaircissement. a ñun waa Pastef. Mhm. ñun kenn yareewuñu noonu. voilà. dafa am ci lenn lu ñuy tënku. Mhm. moom mooy ku ñu xam nga ñu ci respect. Mhm. xam nga ñu ci yar. xam nga ñu ci teggin. xamoo ci wax bu ñaaw. kenn xamuñu ci ay saaga. dëgg te loolu duñ ko def te kenn yareewuñu loolu ci biir kër. te muy dëgg. waa moo ko Idrissa Seck tamit kenn yareew leen loolu. li am ba am moom mooy dafay am ay nit yoo xam c'est des conflits. Mm-hmm. yoo xamante ne nit ña koy créer mm-hmm. bëgg indi divergence mm-hmm. par rapport ñun ak Idrissa Seck te ñun ñëpp ñoo bokk ñuy xeex te muy dëgg te muy dëgg loolu na leer côté boobu na leer loolu ñu dégg ko voilà voilà ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex il faut que ñu xam ko donc nag leneen li nga xamante ne si moom mooy li am li may woo moom mooy sama compatriote yi di ko woo sama askan mbir ñun suñu diggante waa Pastef ak waa Idrissa Seck mbir mi ñun la ak Macky Sall. rek. voilà Macky Sall moo ñu intéressé. donc li ma leen di ñaan moom mooy na ñëpp delloo si xel yi delloo si xalaat yi te xam ne dafa am ñenn ñoo xam dañ leen di yónni pour ñu ñëw ñu mbubboo kom waa Idrissa Seck wala ñu mbubboo comme waa Pastef ñëw di dugg ci biir réseaux sociaux yi di def lañ ñuy def Pastef yàgg nañ leen wax lu leen métti te saalo saala mosuñoo xeex mosuñoo xuloo. waa Idriss Seck yàgg nañ leen wax leen métti te mosuñoo saaga mosuñoo xuloo mosuñoo xeex te Idriss Seck firndeel ni ko keroog bi ñu euh, tojee sunu sunu sunu sunu sunu siège euh, kii bi euh, quartier général bale ci Yoff Idriss Seck dafa bàyyi li mu doon def ñëw taxaw ñëw soutenir mi maa loolu yëpp sant yàlla la voilà mhm. gisoon naa la gisoon loolu yëpp sant yàlla la mhm. donc nit ñi il faut que ñu deewu yeewu delloo si waat seen xel mhm. parce que il faut que ma leeral benn affaire nit ñi xam ko seeni problème moom mooy lan moom mooy nañ leen jéem a jaxase comprendre nga. comme mhm. ça ñoom ñu xuloo seen biir. Mhm. bu ñu xuloowee seen biir ñun ñu am na leen loo xam dañ koy ragal te dootuñu ko tal. Mhm. comprendre nga donc dama leen xamal benn affaire. gis nga élection législative yi passé te dama koy wax chaque jour di koy di ci di ci di ci conscientiser nit ñi. Macky Sall liy intérêt moom mooy nombre de votants yi bañ a bari. lu nombre de votants yi gën a bañ a bare moo ko gën a parce que tey boo ko posé ci élection législative yi trois million trois cent trente sept mille électeurs ñoom ñoo amoon ñoom ñoo doon voté Macky Sall mi ngi ci am un million six cent kese xam nga un million six cent du du du dara par rapport ak population sénégalaise. déedéet voilà. un million six cent du dara par rapport ak trois millions trois cent trente sept mille euh, votants yi amoon. Mhm, mhm. sa kantumaag nag un million six cent du dara par rapport ak six millions. d'électeurs yi nga xam ne pare nañ te jot nañ seen carte dañoo pare pour dem voter ji uh-huh. te Macky Sall ñëpp xamoon nañ ne dafa sàcc donc loolu noonu amul lenn loo xamante ne si war nañ ko ci mën a tiit wala ñu jaaxle uh-huh. Uh-huh. voilà il est minorité et il Ah. te balaa ñu koy xam bu mooy le vingt quatre jot incha allah. be beneen kàddu beneen kàddu bu mujj bi moom defe naa ñun ñëpp ci ànd te boobu dama koy da toujours ma jooy ko ci opposition bi. te loolu du. loolu du question de suggestion la ndax xam naa ne. ci gars yu Pastef yi kawe nga bokk te toujours nga waxtaan ak président ndax man sama bopp am am na temps pour vraiment rencontrer ko rencontrer yeneen opposi opposants yëpp ñu waxtaan. mais vraiment he ah, ah. intrigues me comme li may wax doomu aadama yi c'est quelqu'un ah, d'excellent c'est quelqu'un de de de de de euh, li may wax ci Ousmane Sonko borom xol bu baax la borom xalaat bu baax la te nit ku baax la loolu xam naa ko eh. personnellement mais li ma bëgg mais li ma ci sànni ah Malick xol bi bu mu rafet ba duñu àtte Macky Sall ak ñoom de Malick sénégalais yi loolu man daf ma ñor xam naa ne loolu yow mënoo cee toll guddi yi ñu toll waaye non non xam nga ndax lan. waaw voilà xam ndax lan. waaw. dafa am lenn loo xamante ne c'est le devoir d'un républicain. voilà c'est ça. ñun du ñu jël sunu loxo. Uh-huh. ñun du ñu Macky Sall te du ñun. dëgg la. ñu du ñu jël sunu loxo mukk di ko dugal ci justice mais justice dañ koy jox indépendance am langa nga ne si loolu la war a def dina ko def. effectivement kooku ñun suñu yoon nekku ci. effectivement loolu lañ soxla. comprendre nga ñun mënuñu dugal kenn justice ñu génne kenn justice. effectivement parce que état de droit la ñu wax. a ah, en tout cas. état de droit. Uh-huh. kuy digle sangu da nga fay fekk yow nga set ba pare. te muy dëgg. te muy dëgg yaa ngi dëgg. te muy dëgg. du ñu mele sunu yoon nekkul ci loo xamante ne si ci loxo justice la nekk mais la xamante ne si loolu la justice moom. danañ ko ko jox ba mu mat sëkk ba mu xam ne moom moo moom boppam parce que ñun indépendance de la justice la ñuy wax. xam nga procureur ñu dindi ko ci titelu ministère de la justice ba mu leer ko ne moom liggéeyam mën na ko def. Hmm. te du am benn pression te bu ko defee na mu waree kenn du ko déplacé wala ñu ñëw ne ñëw ne ko yow da ngay jóge fii dañ lay yóbbu ci àll ba. Hmm. loolu bu amee rek jaamu mun a am. dëgg la dëgg la. am nañ ay corps de contrôle yoo xamante ne ñoo ngi te liggéey boobu noonu ñu doon def liggéey baa ngi fi loolu dañ ko jël rek dugal ko ci tiroir yi. Mhm. donc yooyu buñ ko fëggee teg ko ci table bi ñoom xam nañ nan ak nan la ñuy def. bu boobaa ñun ña nga xamante ne si ñoom ñooy jiite wa mooy président Ousmane Sonko yoonam nekkul ci loo xamante ne si moom mooy xanaa yëgal la ci am. te muy dëgg mais justice la muy def. accord de contrôle yi la ñuy def. Mhm. bu boobaa seen indépendance totale la ñuy yor te bu boobaa la ñuy def ñoom xam nañ ko. muy dëgg. vraiment donc euh, loolu la ñuy woote quoi. waaw vraiment indépendance de la justice. Mm-hmm. te déggagoo kenn kenn ku ñëw taxaw xam nga nit. nee nañ wax bu dofee ñi koy dégg war a nekk nit. déggagoo kenn kuy ñëw taxaw ci benn politicien ñëw ne la suma ñëwee damay supprimer fonds politique dégg ko doo ko dégg. <coughs> ah dinañ ko supprimer parce que Malick. waaw xam nga non non dégg ko. xam nga dama la wax rek. xam naa li nga wax bi nga xamante ne si. voilà Ousmane Sonko moom la am pour defar Sénégal. xam nga Malick. man man man bu ma toogee di waxtaan ak ay nit ñu normal ñu ànd ak seen sago. on est tout on est tout conscient de ce que Sonko représente. dëgg la. xam nga nag comme li may wax nit ñi toujours. dañ ma koy fàttali toujours ñu ne ma les sénégalais ne sont pas prêts pour le changement ma ne leen waxu leen dëgg de. sénégalais rek a pare ah. pour changement. ma ne xam nga yan sénégalais ñoo parewul pour changement ñu ne ma waaw ma ne les 2 pour cent des sénégalais qui volent tous les fonds du Sénégal pour def ci seen ah, zone. bien sûr. mais les 98 pour cent des sénégalais lambda veulent le changement au Sénégal. parce que Sénégal xam nañ ne bu fa changement amul réew mi mënta dem kanam. réew mi mënta dem kanam mënuloo yor oto mm-hmm. mënuloo yor oto bu paan nga ne xaaral ma debe ko di ko neexal dina dem mënta nekk oto bu paane il faut nga réparer ko donc système bu paane aussi il faut nga réparer ko mais c'est la vérité c'est seulement plus y'en a y'en a pas plus simple que ça xam nga euh, Ousmane mm-hmm. lay wax benn mbir mm-hmm. suñuy la joor la fi toogoon di xeex xeex tubaab yi la doon xeexal. ci la ci nooteel. dëgg la. Cheikh Ahmadou Bamba. Mhm. radiyallahu taala anhu. Mhm. dafa ñëw doon xeex lan la doon xeex. dafa ne kenn du ko noot kenn du noot askanam. Mhm. looloo tax tey ñu ñëw jël ko exilé ko. ma tey jii tey euh, macha allah li mu am mu am ko. maam Imaam Malik lan la doon xeex. kenn du ñu noot. mais gis nga ñiy baax ñi ngi baax ba léegi. Mhm. mais ñi ñi nga xamante ne ñoo ngi nekk ci beneen yoon ba ñoo ngi ci beneen yoon ba du ma àgg ci tur bi. xam naa xam naa li yaa ngi dégg donc li am solo ba am solo. Mhm. moom mooy sunu maam yi lañ doon xeex ba léegi nii jógu fi. Mhm. donc toujours dafay am ñenn ñoo xamante ne toujours dañuy nekk maanaam ay ay jaam la ñuy doon. ay jaam la ñuy doon. man de man du ma nangu nooteel te kenn du ma noot. yow ak ñun ñëpp allah te la ñuy xeex yëpp. waaw te la ñuy xeex yëpp. moom mooy nooteel bi ñu ba nga xamante ne si moom la ñu bëgg a teg pour ñu dindi ko. imaginez depuis soixante ans cinquante neuf ans ba léegi Sénégal ni mu meloon noonu la mel ba léegi lan moo ci changé au contraire dañoo dellu ginnaaw parce que ku avancé wul ku nekk da nga dellu ginnaaw. imaginez ana entreprise yi nga xamante ne si moom la ñu moomoon man maa ngi fàttaliku bi may xale ah ñu xool yenn entreprise yi nga xamante ne si moom moo nekkoon Sénégal Sénégal moom ko anamu yëpp privé dañ ko privatiser. Mhm. moomuñu ci dara. pour pourquoi lan lan moo waral loolu bañ sa bopp weesuwul loolu bañ sa bopp weesuwul loolu léegi nag ñun nag ñun li ñuy wax moom mooy la nga xamante ne si moom la ñu moom moom la ñuy jël teg ko ci yoon comprendre nga jéem a xool nan la ñuy doxalee Sénégal ànd ak Sénégal yi liggéey looloo tax ñuy woote jot na ñu jël li ñu moom loolooy suñu slogan ticket bi jot na ñu jël li ñu moom te li ñu moom lañ koy jël bu soobee yàlla te man li ma gëm moom mooy man waxuma deuxième tour de du ma ko sax xalaat. ay deux man damay gagné élection au premier tour. <laughs> ko humilier ba mu xam ne humilier nañ ko. dina xam ne pesé wu dara. deuxième tour amu fi de ñun da demuñu deuxième tour. <laughs> non non non non dinañ ko dinañ ko humilier ba mu leer ko ne humilier nañ ko. chaque loo musul gis wala loo musul dégg moom ngay moom mooy am ci élection yi nii di ñëw incha allah. chaque jour ma yàlla nañ ci wax jërëjëf waay Malick ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm. vraiment xam naa fan yi bu ñu ko yàlla mayee moom dinañu ñëw parce que comme heure bi grave na. dina ñu dinañu fexe ñu approché le ñu toog live sur table vraiment ñuy discuter ba léegi di conscientiser doomu sénégalais yi. amul benn problème parce que comme suñu njiit li que ku nekk moom mooy débat d'idées. ku nekk war nga am rek dinañu wuyu incha allah ku nekk am nga wàll ci xeex bi te vraiment gis nañ ne yaa ngi ciy béy sa waar. Euh, vraiment ñu remercier waat la rek ci sa temps bi nga jël. pour euh, pour participer ak gars yi ñun ñëpp la jërëjëf jërëjëf ñun ñëpp la. merci euh, nañ nee nañ. Euh, nday euh, liir bu nday bu fekkem neexee xaw ma liir bu nan kiiwee nday jaa jàpp ci mbagg yi. waaw macha allah parce que ñoom ngi ci ànd ak ñoo xamante ne si ñoom ñoom ñuy coaché ku mel ni Omar Konté vraiment mu nekk. suma oh, euh, suma coordinateur. il est exceptionnel il est exceptionnel. seen waajooju ba pare moom it moom ñu nekk keneen koo xamante ne si moom mooy États-Unis yëpp muy Aïcha Aïcha Aïcha Touré. macha allah soxna Aïcha Touré. macha allah donc ñoom ñëpp ñoo ñuy coaché ak waa Pastef yëpp ñi nga ah. xamante ne si ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw nekk suñu sunu kanam di ñu guider di ñu teg ci yoon donc ñun ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant parce que mbir mi du man man mii ngay gis man maa ci gën a tuuti am na ci ñeneen ñoo xam ñoom ñoo ma ëpp ay xalaat gën ma ëpp doxalin gën ma dàq a wax macha allah donc ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te ñun ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen woo que nit ñi nañ dem jële ji seen carte te ñu préparé vote yi te ñu préparé sécuriser seen i vote au soir du 24 incha allah Ousmane Sonko la ñuy dégg moom mooy bu soobee yàlla. incha allah merci Malick vraiment merci. ma ma dolli ma dolli ci tuuti rek loolu nga doon wax ci Omar. Euh, uh-huh. y' a quelques mois de cela lii dina la reeloo xam naa buñ la ko waxee. dama dama jékki-jékki rek ma jot euh, message ci Omar. mu ne ma vraiment ñun ñooy waa Pastef nangam sama xarit la. mu ne ma ñun Sonko la ñuy euh, jàppale Pastef. wallahi wallahi xaw ma woon luy Pastef Omar moo tax ma xool gis nga bi ma xoolee bi ma xoolee ma commencé gis xam nga adduna bi comme li may wax doomu aadama yi la toujours rek nee naa leen adduna bi jarul ngay ne kenn màccal euh, jarul ngay ne kenn lekkal lekk bi ne ko rek maanaam demal vérifier damal xool lekk bi bu ko xoolee moom bu ko bu ko jaralee mu lekk ko dina ko lekk bu ko jaral mu lekk ko dina bëmax ndab li able mais gis nga Umar bi ma waxee ci Pastef ma dala xool Pastef ba léegi man de dinaa leen ne en tant que citoyen sénégalais je sais que je suis impressionné man xam naa ne impressionné ah. ngeen ma te xam naa ne ah. aussi impressionné ngeen ay citoyens yu bari léegi daal defe naa li ci des rek mooy comme li gars yi waxoon ci temps Obama li ñu doon wax mu ne du naat ah. du naat bu vote bu ñu yuuxu mais nañu voté il faut doomu aadama yi comprendre loolooy dëgg. loo tàccu tàccu sonko loolu mënul yóbbu sonko ci pale bi. dëgg la. loo tàccu loo yuuxu yuuxu sonko loolu yóbbuwul sonko ci pale bi. donc dañuy ñaan sénégalais yi nga xam ne dañoo gëm Pastef pour ngeen génn ngeen dem jëli seeni ay carte sànnil ko Pastef. voilà il faut ngeen comprendre loolu loolu bu amul moom. maanaam seen kàddu yëpp sànni ngeen ko. surtout nag li may wax. Hmm. waa Mm-hmm. képp koo xamante ne am nga problème pour ñëw jëli sa carte. Mm-hmm. li ma leen wax ma mooy ci jour élection yi mën nga récupérer sa carte d'identité ñi nga xamante ne si jotuñu seen carte bu ñu ñëwee ci consul bi am na ay carte yu fa nekk. Mm-hmm. bu ngeen ñëwee foofu noonu dina am ñëw xam ne peut-être dinañ am chance mën a récupérer seen carte d'identité. boo leen ma wooyee ma ànd ak yéen buñ ma wooyee ma gunge leen man wax naa leen ko jour élection yi Amérique dina jax de Amérique fii. Amérique fii caaxaan du fi am xaw ma feneen fii moom. nous nous serons présents. waaw ah. waxuma la sax Amérique. ah waaw nous serons présents dans tous les bureaux de vote yi nekk Amérique ak yi nekk Sénégal. part que man munuma dem munuma munuma nekk Sénégal mais am na ñenn ñoo xam ñoom ñoo fa nekk te ñoo ma gën a compétent téeméeri junni yoon. incha allah te mbir mi buñ ko defee sunu liggéey bopp def ko sunu cëru bopp incha allah yàlla dinañu may ndam. yàlla du def dara au hasard. Ah. yàlla lu mu def am na lu tax. Ah. li tax ñu agsi ba fii nag parce que yàlla am na lu mu nar ci ñun te li mu nar ci ñun ñoom du dara lu dul ndam incha allahu yàlla dinañu ko may. jërëjëf jërëjëf merci waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm. amiin di nuyu ñëpp di nuyu sa auditeurs yeeg ñëpp di ñaan yàlla yàlla defal la jàmm yow it li nga yéene Sénégal yéene ko sa biir xol yàlla ki ci yàlla may nga àggale ko jàmm. incha allah ci kàttanu yàlla ak yërmandeem. waaw merci jërëjëf jërëjëf. nit ko baax nga nit ko ubbeeku nga. nit ko bëgg Sénégal bëgg sa askan nga. <laughs> waaw yàlla na yàlla defal jàmm. jërëjëf Malick merci merci. voilà jërëjëf. voilà donc kooku c'était un frère de Pastef comme ni ma leen ko waxee yàlla dafa def ñun suñu tribune bi dafa ubbeeku pour ñëpp parce que je suis de l'opposition xam nga je suis de l'opposition rek du ci wax mais ci jëfin aussi moo tax toujours damay moytu sama kattantulaay kattan euh, ma wax fi ma far parce que bëgguma diviser opposition bi te nangumaa aussi génn gum ne doomu aadama yi far leen fii wala far leen fale par parloowu ma daal maanaam parce que defe naa sama waxu démb mooy sama waxu tey euh, fan yëlee passé sax ay temps yu passé j'avais reçu un message de notre frère assan Diouf Euh, ndeysaan mu ne euh, nit mooma ma woo mu ne ma Assane Diouf nee na bëggul kuy politiquer turam euh, ma ne ko dina am lu ko neex parce que par exemple man Ousmane Tounkara déjà ku ma xam dafa am fierté bu nekk ci man boo xam ne man jeune ne peux utiliser le nom de quelqu'un pour qui pour quoi que ce soit man li may def ci àdduna je le fais avec mes propres responsabilité lu ma war a fay ci àdduna je le avec mes propres fonds musuma dajaleloo kenn xaalis musuma jël xaalisu kenn mësuma jël alalu kenn mësuma ñaan kenn sama fierté mayuma ko bu ma amee pour dimbali doomu aadama je le avec un cœur libre je le avec une conscience libre ndax bu ma tëddee ma nelaw ba léegi bu ma tëddee damay nelaw aw ma dara lu ma naqari kuy seetlu naqari Tunkara tu auras de sérieux problème parce que lii lii lii lii gars yi di wax euh, euh, euh, sénégalais yi seen seen seen waxu jonge bi Tunkara nammul dara waay macha allah dangeen di toog ngeen noppalu ngeen comprendre ne que moi mon problème c'est le Sénégal Sénégal rek mooy sama problème Sénégal rek laa bëgg ñu concentré wu Sénégal rek laa bëgg ñu wax ci moom moi moom problème c'est le Sénégal ak nooteel wi nga xam ne moom la ñuy noot doomu aadama yi bu ma nee la Sénégal nag bëgguma ngeen ngeen mis ngeen ngeen euh, justifier ko neneen mooy Sénégal Sénégal la li ci bokk mooy ñun ñëpp ci lañu bokk Sénégal injustice bi dañ koy xeex Sénégal caay-caay gi dañ koy xeex Sénégal tooñ bi dañ koy xeex Sénégal wax yu bon yi dañ koy xeex donc il faut que ñu comprendre rek ne ñun li ñu intéressé ci Sénégal mooy Sénégal nekk ci jàmm mooy vraiment que Dieu retourne notre brave frère que Dieu retourne tous les Sénégalais en paix mooy yàlla dimbali ñu yàlla sutural ñu yàlla may ñu jàmm parce que c'est le Sénégal qu'on a besoin ñun Sénégal bi ñu soxla mooy Sénégalu jàmm bugguñu kenn ku féewale kenn ak sa morom on n'a pas besoin de ça tout ce na a mooy Sénégal nekk ci jàmm doomu sénégalais bëgguñu kenn am ci jafe c'est ça les réalités de notre Sénégal Sénégal tey métti na métti goo xam ne comme ni ma leen ko wax du ko sonn répété seen président mi ngi noonu di fërfëri nee na Saint-Louis la nekk tey kan la jiital El Hadj Diouf bandit de la République le petit El Hadj Diouf footballeur koo xam ne boîte de nuit Sénégal yi yëpp dem na ko naan na sàngara ji ba mu jeex kooku la jël jiital ko tey mu ne kooku mooy exemple ci Sénégal kooku la Macky Sall jël pour muy dem di ko xeexal ngeen xam ne que Sénégal metti na Sénégal métti na euh, Macky Sall moom ñi ko représenté ci àdduna bi c'est les Kouramaki les El Hadj Diouf le le les nu mu ko tuddee le les ay ay ñoom euh, euh, Makan ay ñooñu la ñooñu ñoo représenté Macky Sall Macky Sall fu mu dem ambassade bu mu dem ambassade tey boo demee ci consulat sénégalais ak ambassades yi ziar ziar frère Balla ziar frère kooku vraiment suñu xarit bu bu bu xaraña ngi noonu ak suñu frère maa ngi lay ziar Balla waaye euh, gëj naa laa dégg j'espère que tout va bien sa famille yaa ngi si jàmm euh, voilà donc ñu ngi lay ziar donc ce qui est important pour sénégalais yi bàyyi ci xel c'est de savoir que le Sénégal est euh, we in crucial time lu ñuy wax yegg nañu ci benn moment bu critique ci histoire du Sénégal yalla nag may nañu opportunité bi li ñuy ne yàlla yàlla bay sa tool yàlla may nañu pour ñu daañ ko yàlla may na nañu opportunité pour ñu daan waa ji c'est important pour ngeen xam ko yàlla may na nu opportunité pour ñu daan ko si ñun lay dépendre nag pour ñu daan ko wala nu toog fi ñu xaar ko mu ñëw ñu daan ñu parce que ñaar yooyu rek a mën a am ñu daan ko wala mu daan ñu il faut savoir que mes frères et sœurs Sénégal a besoin de nu Sénégal daf ñu soxla le Sénégal a besoin vraiment de nous bàyyi leen calculer transhumance yi comme li ma leen wax rek nee leen boo jëlee huile nga jaxase ko ak ndox dafay separe boppam lu niin li day dem fale ndox mi dem fële transhumants yi dañoo taq ba pare bàyyi leen leen ñu dem nale dañoo niin léegi yéen ñi niinul ñun nañu reste ci droit bi rek ñun nañu rester sur le chemin droit yàlla dina nekk ak ñun yàlla dina ànd ak ñun waaye je parlais de consulats et des ambassades dafa am lu important lu ma bëgg doomu adama yi xam ko tey consulat boo dem ci àdduna bi wala ambassade du Sénégal boo dem ci àdduna bi Macky Sall daf ko jël miine ko ak ay tukkuleer mel ni ay caaxaan la dafa jël consulat yi tey consulat bu waroon am ay vingt employés wala diis te aussi aussi cas bi gën a critique Macky Sall dafa jël tey Sénégal indi ko ci benn situation critique boo xam ne mënatul am retour maanaam tey consulat yeeg ambassades yi Macky Sall il a embauché plus de soixante pour cent des employés des ambassades léegi ay local lañu ay recruter local xam ngeen loolu li mu tekki mooy maanaam ñi nga xam ne da nga leen war a recruter dans les normes euh, ambassade attaché la ñuy war a doon Sénégal la ñu war a jóge te benn benn nombre bu bu bu vrai minimum like it's supposed to be a minimum of amount of people par exemple tey réew bu mel ni réewu Sénégal warul am déjà plus de disons dix à quinze employés ci benn ambassade wala consulat waaye tey boo xoolee suñu consulat suñu ambassade bi benn bu nekk li ciy nekk ci ay doomu aadama yuy liggéey ëpp na téeméer donc xaalis bépp bi nga xamoon ne Macky Sall waroon na koo jël tey di ko liggéeyee Sénégal mi ngi koy pasar pasare ci consulat yeeg ambassades yi ñii ñëpp c'est des minimum salaire de quatre mille à six mille dollars par mois écoute quatre mille à six mille dollars par mois recruter local yëpp loolu la leen Macky Sall di fay. ñu ci bari ci ñoom Macky Sall jël na ba jël ay gumba dégg naa ci consulat yi dafay jël ba jël ay nit yoo xam ne danoo gumb like legally blind amuñu benn capa capacité boo xam ne mën nañ koo def ci consulat bi mais tout simplement dafay nekk ay attaché famille wala ay nit yu jege seen famille mu jël leen dugal leen ci consulat pour ñu fay liggéey mais frères et euh, buñ fi toogee tey comme ni ñuy ne débat d'idée buñ fi toogee tey di joxe suñu xalaat ci li doxul Sénégal wallahi dinañ fi wax ba at bi jeex du mat ma ñaanaat leen ngeen delloo si waat seeni xel delloo si waat seeni xel nanu delloo si waat suñu xel nañu ñëwaat ci suñu ay xel xam ne que Sénégal méttit bi fa nekk tey mes frères xam nga comme li ma leen ko waxee man wallahi xeex moo ma yóbbu woon Sénégal parce que man dama yaakaaroon ne bu ñu demee one million marche tey Sénégal ñu bëgg a génn Macky Sall dina génn attaqué ñu moom ak policiers yeeg yooyu mais j'ai trouvé que ce n'était pas le cas doomu sénégalais xiif nañu xiif boo xam ne mar nañu mar boo xam ne yenn saa yi ñu génn ci mbedd xeex taluñu ko parce que nit kuy ñaan yàlla ndox bu mu naan nit kuy ñaan yàlla lekk bu mu lekk kooku boo ko nee ñu ñëw dem génn xeex da ngay sonal sa bopp yaa a des réalités qui se posent chez ngeen jéggal ma ni ma koy waxee xëy na di ngeen ne la gaa il est découragé je ne suis pas découragé ndax ba léegi suñu ni ñaa ngi ci terrain bi di partager ay flyers ba léegi suñu nit ñaa ngi ci terrain yi di conscientiser doomu sénégalais yi pour ñu génn ba léegi ba guddi gii may wax ak yéen doomu sénégalais yaa ngi ci mbedd mi di woote pour nit ñi génn xeex mais les réalités qui sa posent chez est-ce que réalité yooyu méngoo na loolu donc ma ne rek euh, aussi président ma ne rek doomu sénégalais yi nanu nanu nañu jëli suñu carte d'identité yi déjà nañu commencé par là parce que komba manière yi nga ko mën a gañee bari na xeex ni nga ko mën a defee bari na façon yi nga mën a defee xeex bari na nee naa leen tontu du forox ku leen saaga guddi yi ñu tollu baal leen ko ku leen attaqué guddi yi ñu tollu baal leen ko kuy ku leen di provoqué guddi yi ñu tollu baal leen ko dañu am ay infiltré yu bari ci xeex bi xam nga tey man mii ngeen di waxal mënoon naa toog fii am na yu bari yu ma mën a tontu tey te je suis capable vous me connaissez xam ngeen ne capable naa mais du ma ko tontu damay baale damay jéggale lépp ndax mbëggeelu Sénégal damay puus lépp de côté bàyyi ko ndax mbëggeelu senegal caay-caay gi gis naa ko tooñ yi gis naa ko provocation yi gis naa ko wax yu ñaaw yi gis naa ko li ma daan wax ndeysaan bi ma nekkee xale nee naa ma ne reewande mbubb la ku mu neex sol reewande mbubb la lii la lii ku mu neex rek da ngay jël kappoo sol wax bu ñaaw kan moo ko ñaa dàq nit man ngaa toog tey Sénégal di wax lu la neex man ngaa toog ci télé yi wax la neex mais c'est pas ce qui est important en ce moment ku nekk na far fi mu far ku nekk na faral ki mu faral xam nga man le yenn saay dafa am lu may reeloo ci doomu sénégalais yi bu ma leen déglu je vous je vous demande bu ma waxee doomu sénégalais yi ñu ne waaw diw de nitu intérêt la mais mes frères et sœurs mais loolu ci ci ci ci nit ci normalité la bokk yow boo nekkul nit boo gis tey ci àdduna bi amul benn intérêt boo xam ne moom lay xeexal donc kooku dund sax valoriser wu ko man man calculé wu ma intérêt nit ñi gis nga wallahi billahi man même transhumant yi ngeen di jàpp di leen xas man intéressé wuñu man sam bopp yenn saay ma sànni leen xeer mais billaay wallaay il ne m'intéresse pas il faut savoir que source bi du ñoom Macky Sall la ban sénégalais ñaata sénégalais nga yaakaar tey ci Sénégal bu sonn boobu ngay woo di ko jox xaalis mu ne la déedéet loolu boo ko compter ci benn loxo ci la yem de loolu ngeen jéggal ma bëgguma ko waxee wax bu ñaaw loolu defe naa ay saraxule rek nga ci mën a fekk parce que wax naa leen depuis àddunay démb saraxule yéeféer amul lu ne dig nañ ñu ko ñun lu ne dig nañ ñu ko mais wallahi billahi sama conscience seen conscience na tranquille ci ñun nun duñu laal lu nu moomul we'll never take what doesn't belong to us benn nit boo leen xam bu associé boppam ak man bu réglé billahi wallahi tallaahi du jëlal doomu aadama benn centime te bu dee lammiñ bu ñaaw rek ak wax bu ñaaw comme man ngeen ko da ngeen di laaj nit ñi ne diw bi mu ñëwee Sénégal naka la doon dundee il vivait comment wala diw naka lay dundee Amérique il fait quoi il faut savoir que nous on n'a pas besoin des affaire affaire u caaxaan taxu ñoo ñu on n'est pas les hommes les plus riches du monde waaye ñu ngi sant yàlla suñu ay njaboot ñu ngi sant yàlla te xam naa ne Sénégal loolu nit ñi fa mel noonu bari na donc on n'a qu'à se concentrer sur ce qui important man de promettre naa leen man wallahi am naa naqar bu ma jëlee Sénégal boo xam ne bu ma ko bëggoon faj yëpp tey billahi dinaa fi toog xeex cent ans du ma du jeex wallahi parce que le Sénégal va très mal euh, am na ku ne ils peuvent voler les élections mënul sàcc ay élections xam nga wax ji mooy il faut que les Sénégalais ñu arrêté réeralante ngeen jéggal ma Macky Sall mënul sàcc élection Sénégal yi dafa bëgg duggal loolu ci boppu Sénégalais yi il veut mettre ça dans notre dans dans nos têtes pour de pour diverger ñu wala pour jaaxal ñu wala pour indil ñu ay ay ay ay ay réeroo mais c'est pas ce que est les du Sénégal loolu nekkul réalité Sénégal réalité Sénégal yi xam ngeen lu mu doon mooy doomu sénégalais yi génn dem jëli seen i ay carte d'identité voté c'est ça notre problème Macky Sall na kiite rek mooy sama kàddu man man benn but laa am maanaam benn liggéey laa am fi mu toll nii je m'en fous ku koy def bu Idrissa Seck jële tant pis bu Sonko jëlee moom ma ci gënal je m'en I care ay care I care less di ngeen dégg nag ñu leen di jéem a yàq seen bopp yi ne leen Macky Sall dina sàcc élection yi bu leen sonal seen bopp bu leen génn voté doon do it bu leen ko def de génn leen ngeen dem voté sorte allez voté bu ñu boycotté ay élection keroog bu jotee na ñëpp jël day off seen liggéey na ñëpp jël repos seen liggéey le 24 février marqué leen ko sur votre calendrier ngeen wax ko seen waa liggéeyukaay s'il vous plaît pour l'amour du Sénégal na ñëpp ñaan repos na ñëpp dem voter waa Sénégal tamit comme niñ leen koy ñaanee yéen ñi am sikki sàkkane Macky Sall jubul boo leen voté ba pare dem leen toog buntu palais jël leen café keroog ku nekk na économiser benn mille francs CFA wala deux mille boo voté ba pare jëlal sa kaar ñun ñëpp ñu dem dajaloo buntu pale xaar résultat yi bu dee da ngeen yaakaar ne Macky Sall dina sàcc du sàcc il na va pas voler les élections Macky Sall keroog bu huit heures de la nuit di sonné Macky Sall di abal palais di génn palais de la République parce que dafa am landing airport euh, am na fa léegi par exemple euh, wàccukaay euh, hélicoptère Macky Sall bu huit di sonné muy départ di wutali ay Maroc wala yeneen réew yoo xam ne dafay wuti réfugié parce que je j'en suis sûr et certain que Macky Sall est très très très sain Sall il kone très bien xam na bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Macky Sall xam na ne man gagner élection Sénégal Macky Sall il est très conscient parce que comme li ma leen wax vous ne voyez pas mu woote benn mu woo benn nit bu compétent wala benn nit bu normal Macky Sall bu nit ñi di jël ay idée moom il amène caay-caay la ci indi comme li ma leen wax imaginel tey euh, euh, euh, Mambay Niang ay ay Moustapha Cissé ay El Hadj Diouf ay Kouramaki ay ay ay yeneen ak yeneen ñooñu ñoo représenté Macky Sall y' a on fou tey ma mayaale ko sax ba notre fou de de l'Italie xaadim Gueye la tudd je ne sais pas nee na boppam David la tudd defe naa tour bi tour xaadim bu tedd bi dafa dafa baax trop pour moom changé na ko def na ko David Gueye euh, donc yooyu yëpp dafa am ci suñu ay xeex donc comprendre leen ne que nun Sénégal la gëm on croit seulement au Sénégal xallil xallil nañ leen yoon bi tey ku bëgg a wax vraiment war ngaa comprendre ne am nga loo mën a wax wax ko kenn terew la mais on n'a qu'à se concentrer sur le but tontu nag di forox ma wax leen li américains yi daan wax bul joxe coup de poing yoo xam ne mënuloo ko encaisser bu leen sànni ay coup de poing yoo leen mënul encaisser li may waxal nii sama xarit yu bari yi laay waxal ci réseau sociaux yi ñoo ñu ñu bàyyi xel mooy tey ku ñëwoon nga yor sa ay xalaat yu ñaaw wala ay sa wax yu ñaaw nga ne Ousmane nga koy sànni wala Ousmane nga koy wax xalaataatal bu baax think again nekk du la tontu léegi mais est-ce que bis bu la ko indilee ak ay preuve ak caay-caay yu bari yi ak tegal la yëpp sur la table est-ce que di nga ko mën a survivre calculer loolu xalaat leen ne que je vous ai saraxule bii ngeen di waxal ni il est capable saraxule bu dof la comprendre leen wax naa leen ko nee naa leen c'est un saraxule fou saraxule bu dof la laaj ma ñi ma xam ñu wax la if you don't know you better ask somebody so they can tell you am telling you do not play with fire you will get burned wax nañ leen loolu nee nañ leen bul foyee safara di nga lakk li si ay dossier ci àdduna bi bari na de te ngeen comprendre aussi ne que euh, tey technologie dafa fort lépp loo xam ne xew na ci réseaux sociaux yii wala xew na sa diggante ak ay nit preuve yaa nga fa preuve yaa nga fa de il faut savoir ce que vous fet il faut fair attention dans la vie parce que man ngaa fooyee loo xam ne man na laa yàq ba àdduna tukki mooy li ma doon wax nit ñi rek gis ngeen fi barki Dembo Ndiaye benn kàddu bu ndaw bu ma fi doon def ci réseaux sociaux yi defe naa woon maa muus may wax ak benn nit di ko jéem a réeral ñu jël enregistré tas ko gis ngeen buzz bi loolu amoon. Donc, il faut savoir que dans ces réseaux, il y beaucoup de choses qui sont enregistrées, il beaucoup de choses qui existent, ya des reçus, il y des traces et il y a des preuves qui se couchent partout. Comme tey ci àdduna bi ko séqal dara am na ay preuve yu mu teg lépp a ngi tege caaxaan bàyyi leen ko sénégalais mën naa sos man naa caaxaan mën naa wax lu ñaaw mën naa def lu ñaaw nañu génn voté loolu moo important guddi yi ñu toll twenty days vingt jours des élections présidentielles du Sénégal xiiroo ŋaayoo waxante lu ñaaw defante lu ñaaw xeju fi il faut ñu concentrer wu y a des infiltrés dans nu am na ci ñoo xam ne ci ñun waa APR lañu te xam nañu leen on vous connaît on va vous dinañ leen siiwal xam nañu ci biir ñun ay nitu APR yoo xam ne dañ noo rax dañ fii ñëw di jéem a yàq di wala diw nee na la diw def na la wala di jéem a jël diw di ko promo di jéem a jël di di ko on connaît tout xam nañu lépp xam nañu nitu APR yi nu rax def nañu nag ay erreur mais on va les rectifier bàyyi leen ci xel lu leer laa leen wax nag gis nga fan yii benn caay-caay bugguñu ko ci réseaux sociaux yi comme niñ ko avertiré woon sëriñ si duñu mayati kenn dara dara duñ la ko may tontu nag du forox kuy def say caay-caay bul nelaw guddi ndax bomb yi ñu yor billaahi bis bu génnee masiba dana am ay sëy yu bari dana tas ay nit ñu bari dana nu xaru bàyyi leen li ngeen di def te ngeen liggéeyal Sénégal nanu liggéeyal Sénégal waxal Sénégal defal Sénégal loolu moo gën c'est le Sénégal qui gagne comprendre leen loolu koo wax lu ñaaw moo la daq wax lu ñaaw fépp koo jàppee dof bi lay wallaay li Pape Alé Niang wax mi ngi wut garab bu la fajee comprendre leen loolu kenn doful fii koo yaakaar ne yaa ngi koy nax yaa ngi nax sa bopp les gens sont réveillés doomu aadama yeewu nanu c'est ça loolu laa bëgg ngeen comprendre voilà donc avec tout ça aussi euh, xam naa ne rek fi mu ne heure bi tënk nañu euh, donc fi mu ne li ñu doon wax vraiment defe naa wax nañu majorité bi yëpp pour tey ñu joxan voilà ma ne ñu joxante waat rendez-vous rek mercredi bu ci yàlla àndee donc euh, incha allah on se dit mercredi à la même heure dinañu ñëwaat vraiment ñu indiwaat yeneen expérience yoo xam ne doomu sénégalais yi dinañ ko mën a jëfandikoo parce que wax ji yëpp mooy comme ni leen ko waxee ñu génn voté vraiment yàlla may nu ndam yàlla may ñu succès ci xeexu Macky sàll bii nga xam ne moom la ñu janool vraiment deux mille dix neuf di at bi nga xam ne moom moo gën ci sénégalais yi muy at bi nga xam ne moom mooy njëlbeenu changement au Sénégal pour toujours merci en bon entendeur salut